am na solo jërëjëf damay dem ci lu bokk ci wàllum maanaam euh, xëccoo dañu ne xëccoo nag jamono ji léegi bëri na mën naa nekk ci suuf mën naa nekk ci ay matériel ak leneen lu mën di doon ba mën nañ ci dem tribunal loolu loo ci man wax wàllu xëccoo moom mhm. du ma ne maay borom mais dama cee xam lu wóor gis nga boo amee sa kër jënd ko ku ko mën a xëccoo ak yow nga ñëw ji man li may ut lenn li nag nagu dëj laa koy wute ak weewu mbaam li may liggéey su ma ko ci liggéeyee ba pare bay ma boolee kook sa yére ak bi ma ci ko ci kër gi xanaa ko rep moo koy xëccoog yow te loolu ñi ma ciy jëfandikoo jëflanteel ñëpp ci réew mi mosuma ko jëfalanteel nit xam nga dama naan la léeg ma ne la léeg-léeg fajal nit du fe du wér léeg-léeg nga ñaan nit du sotti mais loolu mosuma koo defal nit te amu ci ndam képp koo xam ne nii maanaam yaa ngi xëccoo ci wàll woowu kooku moom ñeme naa cee garanti lu nekk bu la neexee sax nga bañ maa fay ba nga ba nga ba nga am ca ndam xëccoo moom dafa am spécial bu dee wàllu tribunal nag dafa am lu ñuy wax xalwatu am lu ñuy wax riyaada xëccoo boo ko bëggee man dëgg dangay ngay ñemee toog jataay jox ma nag ma defal la jataay ak toogab jataay daa bokkut moo tax man sama xarit yi soit bu ma demee seen kër bu ñu ma nee toogal damay bañ damay préféré taxaw di wax ak ñoom wala ma taxaw toog ci lu njool parce que toujours man damay toog toog bi may toog di farankaay du liggéey mooy jàpp sama tànki da koy métti ba du ma sawar ci toog ba tax na maanaam li li wutale loolu mooy lenn mooy mën ngaa dégg bisimilah rahmaani rahim mooy basmala nit ñi di ko waxtaane rek nga ne waaw kon man bu ma demee dinaa toog yow mi yow mi dégg amoo ndigal aw tur dañ koy tooge tooke mooy nga am ci ndigal man koo jëfandikoo bëri na ku lay wax amul ndigal ci li muy jëf ñun nag amul lenn lu ñuy jëfandikoo te lu lu ma ciy jëfandikoo lu ne mën naa la xam ne la mag sàngam moo ma ko jox dëkk sàngam la dëkk teg ñi ma ko jox ñëpp ñu ngi dund. nga baal ma doguma la xëccoo boo xam ne àgg na ba ci côté tribunal dama cay seetlu lenn. Mhm. comme yow nga am daraja maanaam doon ko kawe siiw nga am na loo am te man awma ko man baat yàlla xàmmewul borom daraja suñ fa àggee yow li ma ëppale lépp mooy tax dañ leen la jox dëgg jox ma toor bi man dama ne yoon ma maa war a waaw loolu ñun ñoo ko xàmmee yàlla xàmmewul borom daraja ak ko amul daraja foofu laa bëgg a xam lan ngeen ci man loolu liñ ci man leen rek la mhm. mooy nit ki ak tur bu mu mën a am gis nga li ma lay wax nii du caaxaan histoire réelle la kooku sama nijaay la dafa jote ak nit nit ki ne ko dinaa la duma dinaa la tëj nii mu tombeek màggalu Touba yàlla nañu ci yàlla yóbboog jàmm la tombee loon gis nga bi ñu ko indil plainte bi jour màggalu Touba lañ ko indi këram IGE moo ko indi këram ñu convoqué ko tribunal direct mu mu woo ma ci biiru màggal gi ne ma sama jarbaat mu ne ma ne ma ay am na de ma ne ma xew mu ne ma nang ma nang ma ne ko dañ màggal ba pare mu ne ma convocation bi ma ko wooy dañuy màggal sëñ Fallou dañuy màggal dañuy màggal bi ñu màggalee ba pare gis nga bis bi ñu njëkkee wuy ji sama nijaay bi muy dem àndut kenn moom képp ànd kenn àndut ak moom waa ji ànd ak ay xaritam ak avocat ak yëpp ñu daje waaj ji bi mu àggee bi ñu taxawee bañ àtte ba pare ñu teg sama nijaay ay daan nangam nangam mu ñëw ne ma sama jarbaat seetaan nga ma ma ne ko déet seetaan nu mu bëri nañ euh, àttewaat leen waa bi mu ñëwee xamul turam tudd lañ ko wax mun koo wax pour wax la rek ne sëriñ am na wala amul li ñu liggéey lépp ci biital nga sox tëj ko sànni ko géej wird ko gis nga boo ko wirdee nit ki bu àggee ko nee noo tudd comme nga ne ma noo tudd ma tëb ne la sëñ Cheikh Abdou Gningue du ko wax de koo xamul noo tudd xanaa li nga waxoon ci tribunal di nga ko fàtte kon am na dama ne lu nit ki bëri bëri doole du mujj fenn am na fi kilifa gu mag goo xam ne ci politique bi la faatoo woon ba tey mbiram kenn déggatu ko kenn àttewu ko pourtant loolu ci am àtte la jóge woon bu àtte woon booba moom mu ngi ci tribunalu Ndar am ku ñu faat moom mu ko war ko àtte mu naax saayal dee gi yaay ji jóg taxaw ne ko ni nga naax saayale sama dund sama deewuk doom gi yal na yàlla naax saayal sa gos moom kilifa googu ba gaa yi defee li ñu xam ba noppi moom ba mu dee ba tey ji àtte wuñ daa naax saay moom it dama ne la am na loo xam ne pencum yàlla rek lay leeree mais du doon ci ko suuf moo tax sëriñ bu la nee mun naa nangam bu ko weddi sama papa daf ma daan wax ne ma Abdou koo gisut fukki weer ak ñaar bu ñëwee lu mu la ne mën naa ko bu ko weddi xaw ma dégg nga yow olof wala déet. waaw ah, kay. jërëjëf dañu dem ci beneen euh, ñaan mën naa ne lu bokk ci wàllum xalwa est-ce que yéen su ngeen dee dugg xalwa du jël temps boo xam ne ay gan mën na si leen ngeen war leen a liggéey te dugg xalwa bi dina a jël ay fan. bëggoon naa xam ni ngeen di dugg xalwa dëgg li ma li a wax mooy fukki sëriñ ñu wax dañuy dugg xalwa tey juróom-ñeent yëpp dañuy dóor kenn dugg ci xalwa man maa la ko wax ne fukk ñu la wax damay dugg xalwatu juróom-ñeent waxuñu dugg mosuñu dugg xalwatu xam nga lu tax xalwatu neexut doo lekk lu jóge ci ruu doo lekk ginaar doo lekk nag yàpp nag doo lekk yàpp bëy doo lekk soow lépp lu jóge ci ruug yi dund doo ko laal. doo ci lekk doo ci lekk dara xalwatu boo ko def xam nga looy lekk biskit ataaya ak suukar ngay dugal wallaahi al ajib ak tàndarma léegi la la gaa yi xewal ay jënd ay fruits yi banaana ay dugal bëgg lu yomb. xanaa parce que booy suñu borom ngay jàkkaar lool xam nga boo tegee mbiskit di koy lekk yéey ko ak gerte boo paree nga jublu ci li ngay liggéey bu woor ba ngoon jot nga tàngal benn kaasu ataaya te sax nag daa am ci ñu la ko autorisé am na yoo xam ne te ñoo koo tàngal ataaya da ngay jël nag ndox mu tàng noonu tàngal ko def ci xorom naan ko ngir sa butit yi yow nga lekk juróom-ñaari tàndarma. ku dugg xalwatu génn dangay ngay xees pecc waaye ngelaw sax bu la ëppee nga daanu xalwatu nag wax ko yomb na waaye xam nuñ koy jëfe sax dafa jafe. damaa seetlu léegi sëriñ bu jóg ne damay dugg xalwa rek. barki alxuraanu karim makkaan mi day laab yére yi laab yow nga laab makkaan mi day laab boo ko déggee mooy makkaan mi dara lu lewu lewet yi waru fee nekk doo gis nit nit it du la gis. maanaam sa diggante ak àdduna ngay coupé ndax sa diggante bi ngay jëf sa diggante ak suñu borom la war a doon xalootu nag dafa am ay façon am na bu ñuy def ñetti fan am na bu ñuy def juróom-ñaari fan am na fukki fan ak benn am na 41 jours 41 jours ci yonent yàlla Moussa sax la jóge woon histoire boobu léegi nag karawatoo karaw xalwatoo juróom-ñaari fan sax nga gisatu sëriñ bu ko dugg ba naan 41 jours dañ koy dugg xalwatu nag riyaada mu ëpp ci lu sëriñ ci def fi mu toll nii riyaada mooy loo xam ne 30 minutes ngay toog def ko wala nga toog léegi di benn 2 heures de temps nga def ko génn doxe say soxla léegi nag yow nit ki ngay liggéey la nga koy leeral ne ko bu dee xalwatu lii la bu dee riyaada lii la mais dañ lay facturé xalwatu defal la riyaada. soo koy dugg yi nga war a génne. waa kay mu ngi noonu amul ku ko amul ku ko nungoo fay fii. xam nga boo gisee ma ne la léegi ci biir wax ci bi ñu tàmbali ma ne la man système bi may liggéey du ma bëgg nit ñi ñëw sama kër mooy li may riyaada day bëri te bëgguma tàmbali jàpp course dit waxuma la xalwatu de li may reyaade dafa bëri bëgguma jàpp course rek nit ñëw ma bàyyi ko bu dee xalwatu kër gi ma dëkk def naa fi ñaari at ñetti yoon laa fi dugg xalwatu ñaari at ñetti yoon laa fi dugg xalwatu kon doomu aadama bi waxal dëgg wallahi la si laa ilaa ilaa bëri nañu la ne mën nañu xal man de gis naa sëriñ soo xam ne dañu dugg xalwatu dañu may wone ma looy duggee xalwatu pour man ma baaxee leen lu ñu duggee xalwatu te pourtant man dégg naa leen ñu ne ñoom mën nañu xalwatu waxtaan nañu ba tàyyi ci jataay ñu ne ñoom am nañu lu Cheikh Karim xalwatu xamuñu ko sax mm-hmm. am na solo kon neen ñooñu lañ toog bàyyi dugg xalwa comme que mën nañ ko damay dem ci riyaada moo gën de <laughs> wàllum bayre su ma su ma def bayre nag ñi koy aussi ba léegi bàyyiwuma la sëriñ si na ñoo xam ne dañ naan damay def bayre mais eh, sa bayre laa bëggoon nga wax ma noo koy defee bayre bu sax sab yi bëgg nag si Abdou Gningue xam nga bay ñu nekk fii ak ñu nekk bitim réew bayre dama la ciy wax lu doy waar sëñ bi mm-hmm. keroog waxoon naa nee naa la nit boo mu bayre nan lay joxee bayre yow mii wax ku la xool xam na yow mii safoo xorom amoo bayre nee nit ñi foo romb nit ñi bu ñu la xoolee dañ naan moo soof nga yow am nga bayre man nga bayre day jëkk ci sa bopp man li wér te mooy dama ne la nit ki da ngay man bayre xam ko doo koo mën a defal nit mu saf ko bayre nag comme li ma la ci keroog laa lay dolliwaat waxaat la ci dama ci yor yu fa wuute xam naa ne gars yi moom bu yeboo ñu ñu mer rek waaye dinaa ko waneeti gis nga secret bi ci wàllu bayre lay dox gis nga lii boo ko bindee ba mu àgg comme na ma ko waxoon keroog nit ku ko jëfandikoo dana am bayre lool nit ñi dinañ la bëgg góor ñi dinañ la bëgg jigéen ñi dinañ la bëgg waaye bayre kese amul njëriñ bayre day ànd ak ubbeeku ginnaaw nag la ma la njëkkoon a wax ca kaaraange ya ma la waxoon boo ko defandikoo ba noppi nga uti bayre léegi nag ginnaaw bayra boobu dafa am beneen secret boo xam ne fii moom la ñuy defaree lii. moom mooy lan. sëriñ si ñeme yaay bu laaj ñu ne karawu jinne la lu karawu jinne de <laughs> non lii ci gileem lañu koy jëlee. Ah, ndax jile gileem yàlla dafa dogal maanaam xeeti mala yi ñuy lekk moo ci sut ëpp ci barke. Mhm. su ko defee moom bu ñu jëlee lii ci moom suuratu bàqara lañuy bind. surtout bàqara nag am na ñetti saar yooyu dugal ci diggante aay yi. Mhm. ak salaatu ala nabi boo ci dugal. boo ko bindee ba mu yàgg su la neexee mu doon ndomba nga takk ko ndomba gi nag li ci doy waar mooy nit ki bu fekkee wajuram moo ngi moo ngi dund boo kon boo fu sa wajur nekk doo takk ndomba gi ndax kenn du la mën a yilif te moom soo koy jëfandikoo bu la neexee nga def ko saafara sangoo foo nekk danañ la bëgg danañ la da nga leen yilif te képp koo toogal mënut doon sa kilifa man diirul sama papa li muy dund ñemewu maa jëfandikoo lii ginnaaw bi mu génnee àdduna laa ko nangoo jëfandikoo ndax bëgg naa sama papa doon sama kilifa waaye nag keroog bu ñu fi jógee léegi képp ku ma toogalee te xam nga ne yilifoo ma ba tey du ci wàllu woowu rek xam nga man mu ngi nii moom laa takk nii jaaro bi mu ngi nii dama ne woon dootuma ci waxati ci wàllu jaaro mu ngi nii gis nga kii mhm. mu ngi wàllu wàllu ubbeeku mhm. wàllu bayre mhm. kaaraange ci ñett lay yëngutu ubbeeku nag soo ko déggee mooy luy mayee koppar xaalis moo tax ñuy wax su fekkee nit ku ñemeen ñeme na dëgg maanaam ñeme ñeme gi waxuma lu muy gis ak yooyu du lu muy gis maanaam mooy am na jotu toog suñ ko joxee dañ ko joxaale secret bi muy wird nga xam ne juróom-ñaari fan yi mu koy njëkk a takk chaque jour day toog def ko bu matee nag moom mën nay def weer bu nekk bu ca duggee benn fan wala ñaari fan lay toog rek wird ko su ko defee incha allahu rabbi dana ubbeeku te li gën a doy waar mooy saa bu nekkee ci jafe-jafe lu jafe-jafe yi tartar fu mu ko xamee mooy ci jaaro bi day ñuul ci biir lay ñuule nag waaye du ñuul ci kaw fu jafe-jafe yi jeex da gis day dañ amut dem ci yóbbu ci ji mu la koy raxasal yooyu déedéet man sama jaaro mu ngi nii léegi mu def at ci man mu ngi nii kenn raxasu ko man nag li may defaral sama bopp laay defaral nit ñi am na ñoo xam ne nag jaaro bi ñu la defal boo ko bësee nii mu lam xamul tax parce que jaaroob 2500 la ñuy dem fay ca waa ji mu defaral leen ko man bëgg liggéey bu baax moo tax damaa bañ ba damaa ut koo xam ne naar boo xam ne Mauritanie la dëkk lii muy liggéey nii jaaro bi lii nga gis mu ñuul ci biir ne lii la ñuy wax euh, jalambaan moom lañ koy booleel ndax moom it dafa am secret bu ci nekk gis nga lii di jalambaat boo ko suuloon fii ci suuf si téeméeri at boo ko boo ko gasee boo ko sulle fa nga ko gasan bu dee xam nga ko boo ko sulle fekk ko fa waaw moo tax secret mag la moo tax Baye Fall di ko takk Baye mooy kaaraange Baye Fall yi moom la takk boo leen takk moo tax dafa doon lu doy waar jaaru bi caaxaan taxul ñu génne ko buñ ko génne tamit waxuñu ko ngir bëgg a waxandoog nit ñi liñ ne jaaro jaaro <laughs> mais li wér te wóor mooy néew na koy dox gis mu takk façon bi <laughs> waaw amul problème damay dem ci beneen cas d'actualité mu di kaaw Karim Xrum Xax xam nañ ko mu di activiste gis nga ko jamono yi yëpp ñu ngi naan dafa feebar. moom am na son Mandela la rek. day xeexal réewam moom xeexalu boppam mais nag ñun ndeysaan ñun dafa am cat lu ñu topp ñun Sénégal. Hmm. gis nga booy xeexal Sénégal xam nga lu nit ñi wax kii dafa soof na dem liggéey parce que ñun ñoo amut ci suñuy valeur di rayante ngir suñu réew. gis nga jàmm ji am ak li am Sénégal ci affaire boo xam ne nit ñi def lu leen neex na gis nga bu doon réen réew yi ñu làngal nii ay Algérie yooyu kon waxatuñ ko dama mas di waxtaan ak sama benn xarit bu nekk Amérique mu ne ma yéen ñun Amérique sax rey nañ ay président ma ne ko waaye déedéet waaye mu ne ma ma ne rey nañ président ñu yéen Sénégal nag mu naa mu ne ma leen da ngeen am problème yéen mosu leen am guerre civile mais mun leen a am ku leen dirige dirige bu baax parce que amu leen yërmande Karim moomu tey li doon coow ak xeex lépp njariñul Sénégal la man ci li ma jàpp waaw bu feebaree na ko senegal jóg faj. waaw ci feebar boobu laa ñëw xam nga ne kuy coowal dëkk du gis nga coow li mu bëree woon ci moom feebar boobu ci la ñuy dellu si ñu taxaw ci est-ce que yéen leen ko maanaam koo xam ne dañ koo mystique mbaa xonjom ndax affaire bi doy na waa trop de. xam nga réew mi fi ne dafa yàqu ba fi mu ne même feebar boo ko ne dañ laa liggéey du ko gëm waaye képp koo xam ne da taxaw di xeexalam réew. wala ngay xeex ak état mhm. war ngaa pare de. dégguma war ngaa pare bala ngay xeex état xam nga fi nii Sénégal sëriñ ci bëri ñu ngi wax dañoo am ay jinne Macky Sall leen ëpp ay jinne. géntu Macky Sall rek moo gën a forcé nag listixaar te xam nga listixaar da ngay jaamu yàlla doo ko def. Mhm. Macky Sall lu mu gént dëgg la xamul tax parce que moo jiite réew mi. Mhm. ba moo tax bañ ko folee tëbu tëb dugg pale toog na lu yàgg duggul di xaar Ablaye Wade di génne ki bagaasam. moom mu doog a ak i moo tax dafa am loo xam ne moom du moom moo la koy def mais li mu àndal mystique bi mu àndal foor na foor boo xam ne nii képp ku dal ci kaw mën ngaa gaaju te doo ko yëg te waxuma la moom mystique bi mu am mais ñaanu mag ñi mu am dafa garaaw parce que fi mu ne nit ñee ko contre nii de mais sëriñ ci kenn contre te ñu ëpp doole ci réew mi moom lañu àndal te man xam naa ay nit ñu ne ci digg àll bi ñoo xam ne ak ñu ko gëm ay nit ñu baax lañ ay nit yàlla lañ ñoo xam ne xamuñu dara ci xaalis ñoom yàlla rek lañ xam ci kaa kii boobu nga wax léegi maanaam ci état bi nga wax ndax dañ ci koo bëggoon a defal benn dimbal pour lu mu war a fajoo ci état bi ñu koy wooyee soxna président bi Marème Faye Sall mhm. mais xaalis bi nee na soxla ko nañ téye seen xaalis waaw moom Karim loolu dafa waxu xale rek ndax nit na muy xalaate maanaam bañ gi muy bañ day bañ ñu not ko ndax xam nga nguur bu la joxee alalam da lay not ci li mu bëgg nga koy defal waaye mën naa jàpp ne sama xaalis sa xaalis yow xaalisu ki may seetaan ñu xaalis ñun réew mi ku jënd tàngal ci bi sa la Marème ba mu doon ba mu doon gudd première dame mënu woon a dimbali kenn picc sax mënu woon a dimbali kon bu amee puissance di ko defee dafa baax rek xaj na mais mënoon naa def ñi fi njëkk a jaar ni ñu def jàpp ñàmbaram di dajale alal pour boppam mais comme mu ko am xel di ko defaat ci réew mi te du moom kese bu doon ci moom la ko njëkkee nga ne politique la mais bu dee dëgg la ñuy wax te yàlla rek tax bëri na ñoo xam ne nii feebar lañ ci Sénégal te ci loxoom la ñu jaare wér man am na ci xale boo xam ne man maa ko booleeg xale boobu man dama koo gis waalo mu am problème mu bët ma boole ko kenn ci fondation bi bu ma tuddoon turam dinañ ko xam ndax ku jige njabootu président bi la bi ma ko waxee moom ci jëm boppam balaa fondation bi di génne seen xaalis moo njëkk a def première opération bi ba xale bi tey mu ngay gis ay way juróom ngi bëgg ci moom ci xol bu sedd guy kon fondation bi la muy def xaalisu réew mi lañ ko defaree partenaire bu mu am bu doon woon président de bu doon woon jabaru président de la république du mën a am partenaire yooyu kon alal jooju alalu réew mi la kon moom na nangu jël xaalis boobu ñu faje ko moo gën de mhm. waaw jërëjëf am na solo euh, Serigne Cheikh looy tàggatoo ak ñi lay seetaan diaspora bi bitim réew ñëpp ci waaw li may tàggatoo mooy la ma daan tàggatoo rek waaw ñoom ñi ci biti nañ bàyyi sëriñ si ñiy dóor sëriñ si it nañ bàyyi ñu nekk ci bitim réew am yaakaar ci yow lool wax la soxlaam mhm. nga laaj ko xaalis liggéeyaloo ko man nag dama leen wax ne maanaam man bu ma nit joxee xaalis du ma bëgg di nekk di la woo woo woo damay bëgg saa bu ma nee la allu rek dama la pare naa ñaareel ba tamit la nga xam ne moom laay tàggatoo mooy képp ku ci yónni nit comme ni ma ko waxee woon na nga yónni ko wóor mu dem ci sëriñ bi ñaareel ba ci des mooy sa xaalis soo koy joxe na ko joxe ci lu la wóor beneen ba ci des nag mooy comme ni ma ko baaxoo di leen baaxee jamono bu nekk rek nañuy nañuy aar bopp di aar suñu njaboot képp koo xam ne yàlla man loolool ko ak koo mën a doon soo ko manee ah na bind ñetti saar yi nekk ci alxuraan te amuñu keef na ñetti saar yu yoo xam ne amuñu keef mooy wal xasri lii ilaa fi xuraysin xul xasri rabbil falaxi soo ko bindee ba mu yegg nga def bisimilah rahmaani rahim moo koy tàmbali ak salaatu na bi nga bind ñetti saar yi ba mu àgg nga tëjee ko salaatu ala nabi waaye nag bu ko tëjee benn salaatu bu am keef maanaam bind mi du am keef nga xooj ko def ko saafara nga wut xasum xay nga def ko ci sa njaboot yëpp nga walit ñu ñëw nga sang leen ci yàlla dina leen aar ci bët bu aay loolu maa leen ko baaxee di jégalu sëriñ si nga xam ne nag dañ ci daan neexal seen ab ceeb waaye da di loo xam ne alxuraan kenn moomu ko ñëpp ko bokk leneen li ci des nag mooy di ñaanal mun Muntaxa Mbàkke suñ borom dëgëral taxawaayam bu baax ndax eh, da ci am loo xam ne mbirum suñu borom la ndax moom sëñ Mor Mbay Siise mu baax ma dafa waxoon ne moom bu faatoo sëñ Tuubaa koy te sëñ Tuubaa moo njëkk a dem sëñ Moon Bay Cissé bi mu nelawee jamono sëñ Abdulaat sëñ Abdulaat jiit yebaloon sëñ Muntaxa mu jullee ko loolu histoire la boo xam ne mag ñi xam nañ ko ñaareel ba ca des tamit mooy mu doonaat doomi sëriñ Basiiru sëñ Fallou da daan wax ne sama ay gi li muy neex ne ay Basiiroo koy dàq ba nit ñi jàppoon sëñ Basiiru ne doon xalifa général di murit kon moom yàgg nañoo ñoo signalé sëñ Muntaxa waaw lil Muntaxa ba jaxtu fi Ndakaaru ba ko sëñ Tuubaa di bind tamit boo ko calculé day toll 1441 day toll at mi ñu toll nii kon moom mën nañoo jàpp Sëñ Tuubaa mu sottee ngi noonu te moom la ñu ñaanal ko yàlla dëgëral taxawaayam Sidi Aboubacar tamit si jataay ba mu toog fële ci Tiwaawan yàlla dëgëral ko ndax lépp lu mag ñi daan bañ mu ngi koy bañ day léeg dara yëngu ci réew mi dañuy taxaw taxawaay bu dëgër ah noonu la ñuy ñaaneel tamit Sërif Abdoulaye Thiaw di ko ñaanale mbooleem niti yàlla yi kilifa diine yi kilifa aada yi ak ñi ne ci jàngo bi ndax suñu dëkkandoo lañ suñuy mbokk lañ di ñaan ci réew mi jàmm ak réew yi ko ak bitim réew wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh